dama bëgg li nga xam yépp nga wax ma ko tey. lépp lu ma xamoon wax naa la ko. dab doxali ma bàyyi ma la. doxali toogu ma damay dab ki dafa mën a fen. bàyyi xaaral bàyyi. Eh, ma sa morom ma toogu ma ki dafa mën a fen. bàyyi ma sama jaam damay dem bàyyi ma la wax. bàjjen bul insister fii doo fi jàll. Fanta Mar est-ce que moo ko de te boo ko waxee di ma tooñ da ngay wax sa jëkkër ne ko convocation loolu lan la mën a nekkee loolu moo am pap Convocação. Convocação.